Maître euh, Ibrahima Touré docteur yi leeral nañu ko euh, ci biir xibaar yi dinañu ko ci leeral euh, saaga yi Moustapha Cissé Lo saaga Yakham mbay ak Farba Ngom metti lool grand serigne de Dakar mi nekkoon grand ganuk grand jury Abdoulaye Makhtar Diop ne dañoo wëgg ya war ay daan teg ko ci loxo ndodd ko Moustapha Cissé ndax li mu def dafa ëpp coowal suuf la nekk ca ndengaleer it kii di waa kii di Abdoulaye Makhtar Diop àdduna ci sàcc ko jur ga nekk ca Sédhiou indi na xeex bu metti ci diggante ay ndaw ak euh, ñu yore ngànnaay euh, jóge fële nga xamante ni moom mooy ca Guinée Bissau ni coronavirus di lëmbee réew mi euh, tiital na lool professeur Omar fay nekkoon directeur de la santé mi ngi sàkku ñu làq mag ñi ak ñi nga xamante ni nii seen wér-gi-yaram dafa néew ñi am feebar coronavirus ci réew mi ak ci bitim réew loolu li daañu ko leeral coronavirus ak Amadou Sabar Ba mooy ndar képp yi la xibaar Abdoulaye Diop moo n ci xarala Mamadou Lamine Samba. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dal na ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci RFM rajo Futur Media ñu tàmbali kook euh, mbirum euh, càcc gi ñu bëggoon a sàcc oto Eumeu Sène ba ñu faat ci euh, kii di Omar Touré autopsie bi nag wadd na li faat xale bi ak li docteur yi wax ah, baayam kii di Mamadou Touré wax na ko amadu Sabar ba bon li ñu ci wax ni mooy euh, écrit en français je sais pas am na laa ko mën a waxee ci olof xale traumatique la confusion multiple sur le tronc xam naa daal dañ ko dóor ba mu tëccu daal ba yaram bi tëccu loolu la daal bon léegi nag loolu la daal dañ ko dóor ba yaram bi tëccu daal xam naa moo indi euh, gaañu xale bi mu yóbbu bakkanam waaw tey lañ ko fas yéene bu soobee yàlla à Pikine cimetière Pikine bu soobee yàlla bon suñu taxawaay ngi si parce que ñun porté woon ba léegi njiitu Amnesty International di Seyni Gassama moom it euh, wax na euh, ci mbir mi nee na amul kenn ku am sañ-sañ di fajal sa bopp ci biir réew mi ndax réew mi réewum yoon la ñu déglu kii di Seyni gasama image yi nga xam ne moom la jot a gis. ci événement yu am kër Eumeu image yi ak certificat de genre de mort bu Ibrahima Touré mi nga xam ne jot nañu ko ci avocat wu famille bi dafa wone clairement que li ko rey mooy dóor bi ñu ko dóor ci këru lutteur bi loolu moo andi euh, faatu bi eh, ba pare euh, teeluñu prévenir maanaam for euh, maanaam hôpitaux yi wala gendarmerie pour ñu jël si ko si au petit matin eh, la ñu doog a woo gendarmerie pour ñu jël si ko loolu tax na ba vraiment ñu ngi exiger pour que gendarmerie mi nga xam ne moo yore mbir mi non seulement ñi ko dóor waaye ñi nga naay complice lañu ñu mun a teg loxo ci ñoom ma jëbal leen justice waruñu nangu ci biir réew di état de droit ay nit di rendre justice seen bopp jàpp sàcc nga dóor ko ba mu dee loolu yoon santaane ko soo jàpp sàcc na ko jëbal yoon yoon entendre ko ñu ñu jox ko juge juge ko waaye nekk di rendre justice sa bopp wala boog ay nit nekk ci biir quartier constitue ay groupe de défense groupe yooyu sax la plupart des gens ñi fa prisé war ñu jóg di assurer seen sécurité bopp ba di nit di leen dóor ba leen rey dafa war a jees yi kon justice na sévère ci cas bi sévère ci bopp cas boo xam ne niru na ak moom bi ne mun na am ci quartier yi fi ci Ndakaaru ak ci biir réew mi ci fànn woowu it RFM nañu ak uh, kii di Eumeu Sène waaye li mu wax mooy mbir maa ngi ci loxo yoon te lu nekk ci loxo yoon moom di ci wax benn waxtu du une heure teg na ñeenti minutes. ak RFM kumpa jeex na. ci wàllu wér yaram ak euh, coronavirus bi lëmbe réew mi ñi ko am tey fi ñu ko jëlee ak ñaate doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ñu déglu ci docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn test ñu def téeméer ak ñaar ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu nag juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci cas contact am nañ ci ñaari cas importe ci aéroport Blaise Diagne am nañ ci fanweer ak ñeent cas yi nga xam ne mooy transmission communautaire ci ñooñu nag Géejawaay am na ci ñett Mbao am na ci ñett Pikine am na ci ñett Mamel am na ci ñaar Mariste am na ci ñaar Rufisque am na ci ñaar Almadi benn la am site Comico benn site Kër góor gi benn la am Jëppal benn Fatick benn Guinguinéo benn Kaffrine benn Xombol benn Liberté 2 benn Liberté 6 benn Médina am na benn Mékhé benn Mermoz benn Parcelles Assainies benn Plateau benn Thiès benn Rebeuss benn Scat Urbam benn Touba benn téeméeri malade ak juróom fukk ak juróom-ñaar bi ñu saytoo seen yaram mun nañu wax ne ko wér nañu te dinañ génn tey bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu ngi ci service de réanimation yi ñeent doomu aadama génn nañu àdduna ni ki démb samedi ñeent fan ci weeru suliet ñeneen malade ñi des nag ñi nekk hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak ñeent téeméer malaat yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeent junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañ téeméer ak fanweer ak ñett ñoo ci génne àdduna mu des ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn moom euh, Mamadou Ndiaye yéen a ko déggandoo gis ngeen ni feebar bii di coronavirus mi ngi gën a law ci biir réew Sénégal bés bu yàlla sàkk kaay di gën a yokk euh, li waral li nu mel Salimata Aw defal nañu ci jàngat. booy def xayma un communiqué bi nga xamante ni moo tolloon si fukkeel beeg juróom-ñeenteel bi bu. benn fan ci weeru juillet taux positivité mi ngi tolloon ci téeméer boo jël fukk ak ñeent yi ak téeméer ak fanweer ak ñeent ci cas yoo xamante ni cas positif la bu tey bi nag dafa mel na moom moo romb yépp ndax taux boobule yéeg na ba toll ci téeméer boo jël fukk ak juróom benn tey jii juróomi fan ci weeru juillet daanaka booy xool chiffres yi ñuy joxe yépp yépp a yokk ñu njëkkee ci kaa communautaire yi moonte ne de fukki fan ak juróom rekk ci weeru juin yëf yi mi ngi tolloon ci ñaar fukk ak juróom-ñeent tey jii mu yéegati ba fanweer ak ñeent loole rek di wane ni virus bi maanaam transmission communautaire bi am jàngoro ji ñu la koy wàll te xamoo ko mu ngi gën di woy rawatina ci ndakaaru ak banlieue bi wante itam ci région yi bu ci mel ne bu Touba cas grave nag mooy ñi nekk Sowétas ñoom fukk ak juróom-ñett lañu woon ay bés bii rekk ñu génn ci communiqué yu mujj yi wante loo xamante ne eggul sax fukki fan yëf di yéeg di yéeg ba egg ñeent fukk ak juróom-ñett ñooñee ñëpp nekk ca réanimation yëf yi nag bu eggee foofu xel du dal ndax ñëpp xam nañu Sowetaas bu fa nit ñi tànkaloowee rek mën naa jur musiba lu jëm ci wàll ñi ñàkk bakkan sax nag daanaka doo toog bés boo xamante ni déggoo lu romb ñaari nit yu ñàkk seen bakkan bakkan dem ba ñett jàpp ñeent loolee yóbbu lim bi ba téeméer ak fanweer ak ñett tey jii li neex nag ci xibaaru tey bi moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo wër ba nar a ñibbi seen kër ndax lu tollook weer buñ daan dégg nit ñi wér gëj nañoo romb téeméer wante tey jii egg nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Salimata Aw remi Ménage tey ak Binta Diallo amoon na gan muy ki nekkoon directeur santé euh, directeur de la santé du professeur Omar Faye moom nag li muy sàkku mooy mag ñi ak ñi xiboon dañ leen a war a làq euh, denc leen ndax euh, li ko waral mooy seen wér-gu-yaram dina woyof lool ci fànn bi Omar Faye ñu déglu ko ci. épidémie bi mbas mi mi ngi yokk. mi ngi yokk bu baax a baax so xam ngeen mas mi su ngeen demee réanimation yéen fa fekk mooy nit ñi mooy màggat ñi ak ñi am ñoo xam dañoo am feebar donc ñooñu leen war a tey protégé faire en sorte que ñoom contact yi ak ñi feebar wàññeeku loolu nag ñu koy mën a def su fekkee ni dañu waxtaan ak ñoom faire en ko ñu toog seen kër wala en tout cas ñu dem ñu laaj seen i mbokk ñu obligé leen pour ñu toog mais ñëpp jàpp ci pour que ñu mën a toog ci kër gi en ce moment bi du am loolu rek moo mën a tax nag pour que nombre de décès yi ak euh, ñi ñiy génn àddina wàññeeku parce que fi mu nekk nii affaire bi quand même mi ngi bëgg a ëpp loxo il faudrait ñu def dara ay mesures yu énergiques pour que décès yi ñuy constaté comme lu mel ni tey euh, mën a wàññeeku. wax nga ñu confiner leen mais naka la ñuy def ba mën a confiner euh, ñooñu yor feebar yooyu la mag ñi ak ñeneen ñi. confiner bi nag il faut que ñëpp jàpp ci. xam naa ni yombul mais confiner bi dama defe ni su demee chaque quartier ñu gis chef de quartier ba. gis euh, wala chef de village ba gis maire ba gis jeunes yi waxtaan association yi waxtaan ak ñoom. fi mu nekk suñu problème mooy ku nekk xam nga sa ñooy màggat ñi ñan ñooy mag ñi ak ñan ñoo ñan ñoo fa feebar ñan ñoo dem hôpital dañu bëggoon ñooñu ngeen dem waxtaan ak ñoom suñ ko mënee sax chaque jour wala euh, tous les deux jours ngeen dem seeti waxtaan ak ñoom pour ñu toog pour que nit ñi daal euh, wàññi visite yi par rapport ak ñoom nit ñi fexe ba contact yi ñu am ak euh, les possibles malades mu bañ am donc ñëpp daal jàpp ci Euh, ca Ziguinchor moom ñi ngi ko doon wax boobu ak léegi euh, centre de traitement ba amul oxygène woon nañu sax gaz la ñuy mujj jënd ngir euh, mën a ñi feebar ñu mën caa noyyi ña dëkkee ca Ziguinchor nag gis nañ ni lool du yoon ñi ngi sàkku ci nguur gi mu defal leen li ko war li ci war ndax ñoom sonn nañu Lamine Ba. ci lu jëm ci wàllu ñàkkum oxygène ci hôpital régional bu Ziguinchor askan wi nga xam ne mu ngi fi yeewoo mu ngi ñaawlu bu baax baax jàpp nañ ne loolu feebar bi di coronavirus dañ koy faral di soxla bu baax a baax faw kilifa yi gëstu ko Mamadou Diatta ñoo ngi taseeg moom quartier bi di Néma 2 li ni mel la wax manque d'oxygène hôpital bi vraiment ñu ngi koy ñaawlu hôpital régional Ziguinchor mu manqué oxygène nit ñi di fa dee ndax ñàkk ñàkk oxygène vraiment je pense que loolu war nañ ko xoolaat. xëy na bu nekkul woon coronavirus bi duñ doon xam ne hôpital régional bu Ziguinchor am na ay problème oxygène loolu nag moo dul yoon bu sukkandikoo ci soxna si moom nag dafa denc tur bi waaye lim ñu xamal mooy li weesu coronavirus hôpital régional bu Ziguinchor dafa war a am sa su ne oxygène. même bu dul feebar corona sax hôpital bi warul manqué oxygène. parce que à tout moment maladie mën nañu jóg mu am benn malade bu soxla oxygène c' est pas du tout normal kon na gouvernement bi war na fexe mu gëstuñu. moom jàpp na ne sax xëy na bu ñu amoon oxygène am na ñi nga xam ne seen i bakkan na ci mënoon nañ leen a sauver. parce que tey ñu fi dee nii tey mën na am sax ñu rëcc mais ñàkk oxygène moo leen téye moo tax ba ñu dee tey mais bu ñu amoon oxygène duñ doon dee kon nag ñu ñuy gëstoo waa dakaar yi. war nañu fexe ñu gëstu waa Ziguinchor parce que lu ne Ziguin lu nekk Dakar moo ne Ziguinchor Seynabou Wagué mu ngi am ñeent fukki at li weesu ngi fekk baax ci Castor moom it mu ngay wone a xar mi nga xam ne amee na ko mu jëm ci wàllu ñàkkum oxygène saa su ne ci hôpital régional ba du dëgg du yoon hôpital régional lu fa nekk dëgg dëgg du dëgg du yoon ku ko waxul ne dangaa bëgg lu leen neex. moom ci xalaatam Ziguinchor dafa yelloo di jot jumtukaay boobee saa su ne ndaxte maladie lu ñuy faral di soxla la. ministre bi lu ma koy ñaan maa ngi koy ñaax bu baax di ko ñaan mu dimbali ñu mu gën a sakkan biir Ziguinchor ndax Ziguinchor aajo nañ ko bu baax a baax dañ ko aajo dañ ko bëgg mu dañoo bëgg lu bëri si fii dafa mu ne nii sonal nañ trop daf ñu sonal. ñu ngi koy ñaan mu dimbal ñu gestuñu bu baax Ziguinchor waa Ziguinchor ñëpp ànd nañ ne li nga xam ne dañuy faral di ko gis muy manqué oxygène ci hôpital régional du yoon ñu bëgg nag ki nga xam ni moo di la santé et de l'action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr ak kii di président de la République ñu gestu problème bi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba duñ la bàyyi ndax waxtaan nga ak kenn ci kàngam yi nga xamante ni nii ci APR la ñu bokk ci Ziguinchor moom sax mi ngi yëngu euh, ci ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu mbéy mi moom nag dafa tudd sax turu Abdoulaye Diouf Sarr ak turu président de la République ne lii dañ cee war a jóg ci nu mu gën a gaawee ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. en tant que responsable politique Ziguinchor dégg problème oxygène moom la ñuy utiliser pour faj euh, ñi nga xam ne feebar bi mbas bi moo leen daal ba ñu egg ci situation boo xam ne il faut que ñu jox leen oxygène pour ñu mën a noyyi loolu nag la constaté information yi ma am parce que dama renseigné wu au niveau des services foofu ñu ne ma effectivement boobu produit daf fi manqué bu leen gënaloon ñu am unité de production de oxygène ci centre bi pour que ñu mën a prendre en charge correctement loolu am amlee loolu mooy andi euh, patients yi fii souvent ñuy ñuy gaañu te xam naa ne euh, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bu ma déggee dina def lépp képp ci kattanam pour régler affaire boobu pour que centre Ziguinchor bi devenir effectivement un centre de référence pour mën a jël en charge euh, ñi nga xam ne Covid bi moo leen dal mais aussi du feebar Covid rek moo fi nekk am na yeneen feebar pour que très rapidement cette question soit réglée may ñaan président de la République euh, su suñu président sama leader di ko ne euh, vraiment na bay xelam ci euh, centre bu nekk Ziguinchor. Lamine Ba ci Ndakaaru ak li ko war gis nañ ni askan wi tàmbali nañoo bàyyeeku ñu ci bari takkatuñu masque tey it mesure barrière yi ñu ci bari euh, dootuñu ko jëfee loolu moo xew ca Louga loolu moom moo tax sax ñu bari ca askan wa jóg di ñaax askan wi ngir ñu moytandiku feebar bi ndax dafay lore Abraham Paul Pouy ngir ñu mën a def solum masque ab réalité ñu koy gis fu ne te ku nekk mën a sol masque fi nga xam ne moo di dëkk àll yi looloo tax ba centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat moo ëmb ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu financement rawatina mutuelle de santé yi nekk ci zone rural bi jox commune Kelgey Géewul Daaru Musti Sagata Jolof ak Léona jox leen ay masque ngir ñu mën koo séddale askan wi Assane Sylla bokk ci kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñi liggéey ci wàllu koppar ci mutuelle yi. président xëy na levé na mesure d'urgence yi ak couvre-feu waaye feebar bi mi ngi fi comme que feebar bi mi ngi fi mu xalaat ni li nga xam ni moo si gën a gën a am solo mooy mu joxe ay masque pour nit ñi mën a takk masque yooyu si jàngoro bi aaru si seen bopp mais aar itam ñi ñu dendal aar itam seen famille. gest bi nag commune yi rafetlu ko lool ba maire yi sax di ñu xamal ne lii de gën a tax ñu dëgëral seen taxawaay ci wàllu xeexu mbas mi boo tëkkul masque mën naa am nga noyyi ko mën naa am it nga jàllale ko parce boobaa feebar booy waaj a amoon da lay yomb baa boog du dugg suñuy bakkan di lor kenn nekk na première xeex. ñu ci bëri bala nga takk seen masque dañoo gis homme de loi sa masque nga gis homme de ni da nga war a takk sa da nga war a takk sa masque bi am solo Louga nag bokk ci région yi nga xam ne ñoo njëkk adopté li nga xam ne moo di solub masque jamono ji nag ñu bëri ci askan wi ñu gis ne ñu ngi commencé bàyyeeku looloo tax nag ba kuréel gi nga xam ne moo ëmb wàllu mutuelle yi te ñu yëngatu ci wàllu koppar amal ab sensibilisation séddale tamit ay masque ci commune yi ngir ñu mën a protéger askan wi mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. juñu naa ko ci boppu xibaar yi muy coowal suuf la am fële ca Ndengeleer grand sëriñ bu Dakar moo nekkoon ganuk grand jury euh, moom it euh, nee na euh, du dëgg du yoon ñuy jël hectare yu toll noonu di ñetti téeméeri hectare di ko jox benn nit Abdoulaye Makhtar Diop ne lu njiin njaaga maire yi ñoom ñooy njaag wax na ci lu bari ah wax na ci lu bari. Alaaji njoogu Jéen defal nañu ci ab jàngat dogal bi jëm ci jël titre foncier bu toll ci ñetti téeméeri hectare jox ko benn nit kese ku ci mel ni njiitu groupe Sédiment diggante Ndengler ak Jilax du lu jaadu bu nu sukkandikoom ci grand sëriñ bu Dakar Abdoulaye Makhtar Diop. la responsabilité du maire. dama jàpp ne ne responsabilité maire bi la waaye tamit ak ay conseillers municipaux yam ñoom ñëpp la engagé nan la ñu mën a xalaatee benn maire boo xam ne ne dafa jox cër askanam mën a jël lu tolloog trois cent cinquante hectares di ko jox benn nit jox leen ma 300 hectares ngir ma def euh, ay exploitation agricole loolee bàyyi rek doyoon na ci ndax bu fekkoon ne am na ay moyens financiers ngir entreprise am wax ji yëpp délibération bu fekkee ne délibération boobu amul président du mës a signé décret boobu jàpp naa ne lii di bàyyi mooy formule bu gën. lu soxal ba léegi wàllum suuf njiitu collectivité lébu bu Dakar wax ne war nañ xoolaat bu baax a baax coow li jib ci ne dañuy saax saaxee lii di littoral bi rawatina corniche bi. c'est que les intellectuels dañoo war a jóg rek wax ci li nga xam ne ne moo soxal mbir mi wax ak askanu Sénégal ne lii di domaine public maritime dafa mës a xam ne ne moom la ñu naan spoliation colonisation française fii ci Ndakaaru colonisation française mosu fee imposer domaine public maritime ñi nga xam ne ne ñooy lébu yi te loolee maay ay texte yu koy firndeel lébu yi mosuñoo ànd ci li nga xam ne ne mooy ñu appliquer lii di domaine public maritime loolee war a lekk boo seetee lébu yi ba tey ñu ngi wéy di dëkk ci code bi. imposer le domaine les lébu vivent teewul nag moom mi nekk vice président ci assemblée nationale rafetlu na bu baax baax ni nguur gi doxalee ci mbas mi di coronavirus mu wax ne président Macky Sall mënu woon def leneen lu may daal di yëkkati état d'urgence bi en levant la bi président de la république mëneesul woon def neneen lu dul noonu ndax boo bàyyee xel lekk fan yu mujj yi nga xam ne ne moom lañ doon dund lii di état d'urgence bi sénégalais yu bëri dafa mel ne nekkuñu ci woon lii di couvre-feu wala état sax barrière wala tamit lii di solum masque bi ndax bu président bi deful woon nii rek mënoon naa jur sax ay jéyee un front social Abdoulaye Makhtar Diop xam le ne ànd na ci ñi daal di soppi turu yenn tali yaak yenn aveni yu nekk fii ci Ndakaaru waaye loolu yëpp li ci jiitu mooy ñu defee ko ci waxtaan ak tamit ci dal alaaji njogu jéen fan yi yëpp réseaux sociaux yi ni ko xale yi di waxee mi ngi toj ndax saaga yi nga xamante ni ni Moustapha Cissé Lo di député ci assemblée nationale mi ngi koy saaga yaa xam mbay ak kii di Farba Senghor mer la noonu loolu Abdoulaye Makhtar Diop nee na dañ cee war a jël ay matuwaay euh, ba képp ku def naka ci dul noonu ñu rëq seen digg ñu déglu ci Abdoulaye Makhtar Diop affaire qu'il faut condamner et sanctionner je ne peux pas comprendre quel que affaire bi maa ngi koy ñaawlu te jàpp ne dañ ko war a sanctionné ndax mënumaa jàpp ne koo xam ne nekkoon nga président parlementaire bu CEDEAO nekk tamit vice président bu assemblée nationale teg ci nekk candidat déclaré ci mairie bu ndakaaru ngay wax ay ñaawteef yu ni mel te ba koy biral sax ci place publique bi loo xam ne ne xel nangu ko te maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax naam sax ay sanction administrative mënul jógee ci assemblée nationale ci kaw rek ñi nga xam ne ne ñoom ñooñee lañ ci tudd ñoom bu fekkee ne ne mbir mi yëbbu nañ ko ca yoon boobu yoon mooy def liggéeyam dama jàpp ne ne lii ëpp na dépassé nañ les bornes teg ci tamit euh, di ko ñaawlu teg ci xel mënul nangu yile insolence possible imaginable ou inimaginable de l'insolence dans ce pays COJER di ndaw ñi ëmb euh, euh, ñi fare ci nguur gi euh, te ñoom ñoo boole seen bopp ñoom tamit ñaawlu noonu lool kàddu yi nee na njiitu réew mi président Macky Sall war na tàmbali nag jël ci ay matuwaayam ndax lii dafa ëpp ndax lu ëpp tuuru Moussa Sow ñu déglu ko ci waxtaan bi mu séq ak El Hadji Ndiogou ñun dañ koy ñaawlu d'abord ñun moom wax dëgg yàlla président de la république ci école am lañ jaar jàngal nañu yar ak teggil jàngal nañu effectivement aussi dal ak teey parce que c'est à partir de ce moment seulement que sénégalais yi lañ ñu mën a euh, lañ ñu lañ ñu mën a nawee c'est à partir de ce moment seulement que sénégalais yi lañ ñuy mën a toppee lañ ñuy mën a déglu sax à la limite pour que ñu mën a comprendre li ñuy def ay saaga loolu wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu bu ba fu ñaawlu yam fu mu mënti jógee nag que vraiment écart de langage moom ça ne nous encourage pas en tant que jeune te mim réew nag wax dëgg yàlla euh, ñun dañu war a royee ci ay autorités dañu war a roy ci suñuy mag ñi nekk ñi jiite tey euh, li nga xamante ne mooy gouvernement bi les institutions ñoo ngi wax président de la république aussi mu siffler la fin de la récréation parce que wax àndul ak jëf bu ñu yàggee di wax bu yàggee suñu parti politique du nuru dara lu dul tabar bu tas donc boobaa nag du encourager ñi nga xamante ne ñoo ñu war a fekk ci jàppale ñu. bu yàggee ñu bëri dañuy daw sax au contraire non seulement kenn du ñëw jàppale ñu mais ñu bëri dañuy daw. xam nga avertissement dafa bokk ci sanction. ñoo ngi ñaan président de la république. mu avertir ñi nga xamante ne ñoo nekk ci parti bi di di waxante lu ñaaw parce ca Ndar géej moom nan la ñu war a mën a def ba yeesalaat euh, tourisme bi loolu moom moo tax euh, ñi ko seq ña nga cay waxtaan waaye waxtaan wi yëpp nee nañ nag dañuy fexe ba dund ak lii di virus bii di coronavirus euh, bi feebar bii di coronavirus ba noppi nag du tere lépp lu ñu war a mën a def ñu def ko loolu mën naa ne waaye il faut ñu respecter mesure barrière yi ak lu ci bari ñu koy saafonte ba feebar bi du law ca ndar géej Mouhamed Nabi Silla ñi yëngatu ci wàllub tourisme ci diwaan bu ndang gise ni yëkkatib couvre-feu bilee ngëneel la ci lépp loo xam ne aju na seen wàllu yëngu-yëngu ba tax na ñu fas yéene respecté lépp lu aju ci wàllub matuwaay jàpp jëm ci geste barrière yi lée secteur bi war nañ ko relancer waat liggéey la yoo xam ne ministère mu ngi koy def ay mesures la ñu jël pour hôtel yi war a tijji ñu tijji waaye ñu respecté mesure barrière yi respecté également règle yi nga xam ne wóor dañ ko mais ñu gën ko respecté pour mbas mi aussi yàlla musal ñu si hôtel yi tam ñu bañ si am ay ñu am bañ am ay cases yu hôtel yi ak agence de voyage ak structure d'hébergement yooyu demee noonu Ousmane Dione chef service régional bu tourisme ci bët gànnaaru réew mi xam le ni ngëneel la ci ñu jot dimbal li leen jagleloon ci force fonds covid 19 waaye muy firndeel ba léegi am na ñuy xaar notification yoo xam ni mën na egg si balaa yàgg Saint-Louis tam am nañ presque restaurant yi financé nañ artisan yi finance nañ guide yi léegi nag ñu ngi xaar yenn financement yi calechiers yi ak galeristes yi ñoom la ñu xaar seen financement kon donc notification yi la ñuy xaar seen notification bu génnee ñu mën a dem ci banque ba jël seen xaalis. ñi yëngatu ci wàllu tourisme restaurant yi les agence de voyage artisanat ak lu ni mel te ji ñu jël seen matuwaay ngir fexe ba dundalaat lépp lu aju ci wàllu koom koo xam ni aju na seen yëngu RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed euh, Nabi Silla ger ngay xeeñ fële ca béykat ya nekk ca Bawol ndax noom nee nañu anam wi nga xamante ni noonu lañ leen di joxe seen jiw gi doy na waar lool euh, ñaari junni lañ leen di envoyé bu ko defee ñoom nee nañu euh, ci la ñuy mën a jëndal seen jiwu bopp te loolu nee nañu ñaaw nañ ko lool Babacar Diouf. béykat yi nekk ci diwaanu Bambey wala sax ñi nga xam ne seen jiw gerte ci Modou Ndiaye opérateur bu nekk ca Touba la a jóge njàqaare moo leen dugg Abdou Ndiaye di wax li ko waral. bañ a jël may insisté di insisté ba mu jël ma ne ma léegi yónnee ma sa carte d'identité am nga euh, whatsapp ba ma insisté insisté mu ne ma bon carte d'identité bi jot nañu ko waaye dañuy xool liste bi ndax yaa ngi ci wala déet may insisté di na ko yow mais Abdou Ndiaye jox ma sama semence mu ne ma dinañ la ko yónnee à ma grande surprise tey jii tey tey tey laa yoon laa ko woowaat jot femme bi muy liggéeyal femme bi ne ma yow yónnee nañ la sa xaalis ma ne ko xaalis mu ne ma waaw ma ma ne ko jox ma numéro code bi parce que man gisuma la ko numéro code bi ma dem ci wari bi à ma grande surprise pour cent kilos d'arachide mu ne mooy valeur u bi ma état bi jox boo xoolee calcul bi kilo gerte bi da lay francs Mor Diarra Fall moom di béykat bu dëkk ci Sokano moom li mu jot sax moo gën a tane moom ak beneen sëriñ boo xam ne nii ci commune Caxar la dëkk woo naa ko ñeenti fan mënuma koo jot day sone du la jël ilaa nga koy woo muy jokkoo bu pare du la rappeler da lay bàyyi ci biir moom noonu la de def boo ko jotee a pratiquement xaalis la lay yónnee cent kilos kilo am mais dix mille cinq cent franc la ma envoyé. loolu lépp tax na nag producteurs yi ne fii mu nekk ni état bi dafa war a xoolaat ni muy joxe jiw bi. li ma des si dund dootuma demandé état pour pour mu jox ma jiw parce que boo ko demandé da ngay enrichir keneen état bi bu defee li mu war a def kim ñuy booleel du am sax doomu gerte. ki nga xam ne moom lañ joxeñ baaraamu tuuma nag moom dafa weddi lépp balaa sax muy jëkkati yeneen tuuma di ko teg ci ñi nga xam ne ñooy béykat yi Bombay yi. RFM Babacar Diouf. Mamadou Ndiaye lay wuyoo nee na li béykat yi wax dara du ci déggu euh, dëgg. Euh, ndax dañu koy tuumaal dong euh, ñu déglu ko ak euh, Babacar Diouf. Ah, dañ ne da nga bokk ci ñi war a joxe jiw bi. mais yow lañu bi ñu la laajee jiw da nga leen ne xaalis nga leen yónnee daal te xaalis nga leen yónnee neuf mille ak ay dix ci cent kilos yoo leen waroon jox. déedéet dañoo dem kenn xaalis. ñoom. Eh, eh, eh, waaw yow bu dikkee ba réew la fee dafa di. su ma saa maa ngi seel saa maa ngi seel gerte laa yor. bu dikkee ma ne leen seize mille cinq cent ngeen may jox. ma jox leen ma kenn. daa ma dégg waaye ñoom cinquante kilos bi la ñu mais mais ñoom ñoom dañ maa woon ay Côte d'Ivoire yoo xam ne nii yow yaa leen envoyé xaalis. man man envoyé envoyé wu kenn kenn kenn ñoom seen seetaan ku dikk boo dikkee ñoom ñoo jaay gerte gi seen biir ñoom moo koy jaay loo bu ma ko jaay na xaalis ñoom ñoo koy jaay ñoo jur jaa ngi lëmbee waa seju ba tax na xeex bu metti amoon na ca ndaw ñu dëkkee ci commune ba ak ay nit yu yore ngàndaay bàyyeekoo fële ca Guinée Bissau euh, ñi ngi sàkku ci nguur gi mu wax ci balaa béy di wéy mbuus Max Euclide Kafani. gannaaw ay semaine wala ay weer bi ñu nemeeku tekk-tekkaaral sàccum jur bi dellu dellusiwaat na ci Balantakunda ak violence bu takku rawatina ci diwaanu commune Jibanaar mairie bi sax mucc na bi ay nit bàyyeekoo Guinée Bissau amee ay nganaay bëggoon sax-saxe bi lay bërëb waaye force de l'ordre yi tax nañu boo liggéeykat bi ci nit yooyu ñëwoon na jël si lu ëpp juróom-ñetti fukk ay nag yu ñu jëlee ci seeni bërëb te ay ndaw yu kunaayan ci jibanaar amal lu ñu mel mbir moomu am gannaaw bu ñu sàccee juróomi ñeent ay nag te ñu jàpp ni ay nit yu bàyyeekoo bisaaw ñoo amal lu ñu mel ci xibaar ñu jege dossier boobu ndaw yooyu bu ñu demee ko sàcc njur yooyu mer bu fut lëkkale ci benn kuréel dem jëli mala yu nit yooyu sàcc waaye jam mujjee dellu si gannaaw bi ñaari pàcc nekkoon ci te bu tar mujjee amal ay waxtaan yaa ba ñu nangu delloo lu war a tollu juróomi ñaari fukk mala yooye nit yu bàyyeekoo Guinée Bissau waaye sàccum ñaari fukk ay nag ñu nemeeko ci Birkama ci commune Djibanaar boobee ci biir semaine bi sax te ay nit yu bàyyeekoo Guinée Bissau def lu ñu mel suñu sukkandikoo ci xibaar ñu jot jur na coow lu rëy ci commune biir it yëngal ndaw yooyu sax ak kilifay jii bi les communes jàpp ni ay sabotage la ak provocation tey ji ni càmmkat yu nekk ci Balantukunda nelawut benn yoon ragal nu mbir yi gën a jegi dayoo gannaaw bu ñu nemeekoo ni nit yooyu di sàcc seeni jur dañuy ñëw ak ngannaay nganaay te duñuy hésiter sans utiliser ngannaay yooyee ñoom sax nemeeku nañu ni ñu bëri si ñoom ñàkk nañu seen bakken ci bu ñuy sàcc seeni jur kilifa yi jiite ñaari réew yi nag ñu ngi leen di artuwaat ngir uti saafara ci mbir moomee nga xam ne day yàq diggante seeni askan Max Euclid Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max Euclide Kamfani Sédhiou RFM benn waxtu du une teg na ñaar fukki minutes ak euh, juróom-ñaar. RFM rajo askan wi. ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la coronews di feebaru coronavirus ni mu lawee ci àdduna ak ci senegal Sénégal Amadou ba lii di cas grave yi ñu ngi wéy di bëri fii ci Sénégal samedi démb bi ñeen fukk ak ñeenti kaa ci dimanche tey jii ñeen fukk ak juróom-ñetti kaa yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci cas grave fii ci Sénégal loolee nag toftal ci ñeenti ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci jàngoro bi di coronavirus tax rek bilan bi toll ci téeméer ak fanweer ak ñett doomi aadama yoo xam ne ne mbas mi yóbbu na leen xibaar bu neex ca Mauritanie ñi nga xam ne ne ñooy wér ci jàngoro bi di coronavirus ñu ngay wéy di yokk rek buñ sukkandikoo ci directeur de la santé publique bu Mauritanie di xamle rek ne amul kenn ku ñàkk bakkanam ci mbas mi ci 24 heures yi ñu génn ba tax rek bilan bi toll ci téeméer ak ñaar fukk juróom-ñeent doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ba mbas mi duggee ca Mauritanie ñaari weer ñu nekkoon ci li nga xam ne ne mooy déconfinement bi gannaaw ba ñu gisaatee ne ne jàngoro bi ma ngay law ca boobilee dëkk xibaar boobu tukkee ci présidence de la république bu Madagascar gannaaw ba ñu amalee conseil des ministres ci benn communiqué boo xam ne na sax présidence siiwal na avion bi dem beeg dikk bi te loolee dinañ ko door ci lundi juillet dafa seene koo jeexal ci ñaar fukki fan ci weerum juillet bi ñu jëm jóge ci Afrique dem ca Europe ca France fédération nationale sapeur pompier yi ñoom ñoo amal benn rapport boo xam ne ne ñu ngi ko jagleel ministère de l'intérieur ci boobu rapport nag ñu ngi wax rek ay erreur yoo xam ne ne gouvernement bi amal na ko ci gestion crise bi di covid 19 teg ci ñaalu numéro sami bi nga xam ne a yokkuwaat bu ñu sukkandikoo ci xibaar Podor ci 24 heures yi muy xamle ne ñaari téeméer ak fanweer ak juróom yoo xam ne am nañ jàngoro bi ci ñoom ñooñee ñaar fukk ak benn ñàkk nañ ci seen bakkan ci yoo xam ne ne coronavirus ba mu duggee ci réew moomu di Italie ca Portugal nag ñoom ña ngay woy rek di moytu ndax dañoo nemmeeku ne dafa am ay vague de contamination yoo xam ne ne moo fay dugg bu nekk ci dimanche ji rek ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci li nga xam ne ne mooy coronavirus di bëri doole dimanche ji rek juróom benn fukk ak juróom ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci jàngoro bi coronavirus bañ ne rek du génn ca États-Unis ci dimanche ji rek 44 969 yoo xam ne ne am nañ jàngoro bi bu ñu sukkandikoo bilan bu mujj bi ci ñoom ñooñee ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan Donald Trump moom mi ngi woo waa ñu roy ci li nga xam ne ne mooy États-Unis rawatina ci li nga xam ne ne noonu la ñuy xeexee bi le jàngoro ci benn tur rek muy xam ne ne États-Unis def na ay jéego yu am solo ci li nga xam ne ne mooy xeex jàngoro bi di corona coronavirus ak stratégie bi nga xam ne ne moom la tamit mbas mi sonal na ko bu baax a baax ndax jàngoro bi ma ngi fay wéy rek di law ci dimanche ji téeméer ak fukk ak benn doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci 35 yi nga xam ne ne testé nañ leen positif desandi ci Amérique latine ak Mexique mi nga xam ne ne fi mu toll nii mooy juróomeelu réew boo xam ne ne ñu loru na ci mbas mi di coronavirus ci ñi nga xam ne ne ñoo ñàkk seen bakkan gannaaw France bu ñu sukkandikoo ci directeur national bu département épidémiologie bu ministère de la santé bu Mexique di mille trois cent soixante six personnes yoo xamee ne ñoom lañ testé positif ñoom ñëpp dañoo ñàkk seen bakkan ci vingt quatre heures yi ñu génn ci dimanche ji bilan bi nga xam ne ne moo soxal coronavirus bi lu tolloog onze millions deux cent soixante onze mille am na jàngoro bi ci àdduna wërngal këpp ci ñoom ñooñee cinq cent trente mille huit cent cinquante huit ñàkk nañ seen bakkan ci àdduna bi yëpp. Amadou Sawar Ba jërëjëf mbokk yi ci foofu foofu la ñuy tàggoo ak yéen ndax xibaar yi buur na ma fàttali leen lenn ci ponk yi ñu fi jotoon a faram-fàcce. Mamadou Lamine Samba. càcc gi ñu ne woon dañu ko doon sàcc oto ëmm seen ba am ku ci ñàkk bakkanam xunduloon na lool Seyni Gassama njiitu Amnesty International di sàkku ci euh, nguur gi ñu wax ci ndax nit mënta am sañ-sañ di fajal boppam ndax réew mi réewum yoon la autopsie bi wadd na docteur yi wax nañu lan moo faat kii di. Ibrahima Touré tey ji sax lañ koy jébbal boromam baayam dégg ngeen ko ci biir xibaar yi saaga yi Moustapha Cissé saaga yaa xam mbay ak Farba Ngom xunduloo na lool grand serigne bu Dakar Abdoulaye Makhtar Diop moo nekkoon ganu ko grand juri dégg ngeen ko ci nee na lii dañu cee war a jóg ndax du dëgg du yoon ca soowul coowul suuf it moom àdduna ci càccuk jur gi fële ca Sédhiou indi na xeex bu métti ci diggante ndaw ñu dëkkee ca Jibanaar ak ay nit yu yore gànnaay bàyyee ko ca Guinée CEDEAO euh, feebar coronavirus di gën a wéy ci réewum Sénégal professeur euh, Omar Faye nekkoon directeur de la santé di sàkku ñu làq mag ñi ak ñi nga xamante ni dañoo xiiboon euh, lu ko mooy njaw dana desendewu xambin loolu lépp dégg ngeen ko ci biir xibaar yi mbokk yi lii ponk lañu fi faram